lañ fi daal di def wante nag ba léegi dara wàññeeku ci juróom benn weer lu mu tuut tuut mooy tax yëf yi daal di wàññeeku ndaxte lu bari moo daal di ñëw daal di tege ci ndoddu gouvernement bi fi nekk. li yëpp ci li nga xam ne dañ koy jëfandikoo dañ koy jéggaane bitim réew loolu moo indi inflation bi loolu ñëw dolleeku si ci dund bu cher bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal te salaire yi matewu ko amuñu itam koom-koom boo xam ne dafa dëgër boo xam ne mën na jàppale ndaw ñi buñ ci doolee tax yi nga xam ne état bi daf koy jël mbir mi day gën a jéggi dayoo. ngir saafara ko nag faaw ñu daal di xàll ay yoon yu yees loole nag dina tax góor góorgóorlu yi daal di ci gis seen bopp. si vous baissez l'impôt sur bu ñu wàññi impôt yi ci li nga xam ne moo di salaire yi nit ñi nga xam ne dañ doon am deux cent mille wala trois cent mille ci salaire dinañ am yokkute bu toll ci cinquante mille wala ci soixante dix mille. loolu dina tax ñu gën yokk li ñuy jëfandikoo dina yokk itam li nga xam ne moo di TVA yi war nañu itam càmbaraat li nga xam ne moo di secteur informel bi ndax nit ñi mën di fay impôt war nañu fexe tamit di gën a jëfandikoo li nga xam ne moom la ñu defaree ci réew mi. une vision globale de consommation locale. bu ñu sukkandikoo ci bile kàngam ba tey lenn rek moo fi sës. moo di daal di muñ ndax ci fiir nda ci lim bi nga xamante ni numbe woo daal dina koy fësal ci ndorteelu weeru février Sénégal mooy dëkk bi nga xamante ni nag dundin gi fa la gën a chéré ginnaaw Côte d'Ivoire. benn fan ci weeru janvier at mi di ñëw day doxal ak budget boo xam ne moomu ko ndaxte ñu ngi ko voté woon at mi ñu weesu te ñoom ñu ngi liggéeyee ak seen programme bopp ñu def leneen ndaxte bu ñu jëlee xaalis ci benn poste yóbbu ko ci beneen poste loolu day jaxase mbir yi day nekk li ñuy wax détournement d'objectif.